ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك l'association des femmes musulmanes au Sénégal une association solo de nous de de de de de nous de de de de de de dëkkandoo yi ñoo ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Ahmadou Bamba Touré nga xam ne mooy xalifab Sëriñ Saliou Touré di jiital ci nuyoo bi Sëriñ Abdoulahad Mbacké mu Cheikh bi nag mu même direction la mi ngi ñu booleeg njabootam ñu Seex dafa ne ci ay yitte yoo xam ne lu mel nii rek ci liggéey bi ca la nekk nekk ca Ahmadu sëñ Ahmad Sall yebal na ndam njaboot gépp ñuy kër gi Sering Abdou Touré ànd sering salah Saliou Ngane ak ñi nga xamanteni ni ñooy jëwriñu dëkk bi Thiès kilifa yi kenn desul ndax sëriñ Mbène Mbaye ma nekk ak sëriñ Jacob muy waa Jaxaw waa Caali waa Madina dëkk bi daal kenn desul sëriñ Ahmed loolu sëriñ bis bi Serigne Saliou Touré mu su cee saa ñëw ci bis bi may woo téléphone ma dem ca këram soo wootee ni waxtu bi jot na ma ànd ak moom ak si kon suñ njaboot bi xamee loolu Serigne ñu ni man naa jël kàddu yaakaar naa ne yow xam nga ne tax kàddu gi nag mooy seede ñoom jamono gi képp maase dama wax ni muy Serigne Cheikh Mamadou Touré kàddoom mooy sant la gërëm li njëkk tey bis bi nga di ko tuddee sëñ loo mos a am ak loo xewle moom man loolu sëñ bi nga ci jiite bala ngaa dara yëkkati laaj sëriñ bi Seex Bamba nee na loolu moom nga bëgg xam naa taalibe yi xam naa dëkk bi xam naa kon bis bii nga xam ne mooy bisu alxuraan nga tudde ko sëriñ bi te la tax nga tudde ko sëriñ bi niveau xëy na ba sëriñ bi wane ginnaaw ndax bis bii kat bi ñu koy tuddee Serigne Saliou Mbacké dama laa demee ba tey demee na moom gis naa ba tey tey bii ñu soo dem benn loo xam ne nag léegi nag fanweeri at wala ñaar fukki at ak nangam ndax sab taaw keroog ba tudd man mii la sëriñ Saliou Touré yebal lu njëkk ne la li ngay sol kon ñun ñëpp gis nañ taxawaay bi nga gi gis nañ taxawaay bi nga taxawee njaboot kon nag ñoom nee nañu fayante wuñu ak yow dañ laa jàpp waajur ndax ñoom kat gis naa ne képp ko daan nekk seen waajur waajur lañ la jàpp kër gi gépp maasa nañ ci bii nga def tudde ko sëriñ bi ñoom bu ñu dikkul woon wax nga ko léegi nee na sëriñ Saliou Touré Thiès kenn ku ci nekk mën nga ko lay sant la gërëm ñoom bi ñu gestoo xam ne jàppoon nga tegoon nga sëriñ sax mag war ngaa jàppale kilifa jàppale lépp nee na ñoo ngi ñaanal yàlla ci bis bii nga xamante ni Serigne Saliou Touré lépp lu ko mën a tuddee ci àdduna alxuraan bu bëri ànd naa ak jibi ci oto bi mu ne jibi jàpp rajo sàngam jibi naka la ubbi rajo bi alxuraan teg jibi jàll sëñ bi ko jibi yaay ñàkk teggin lu tax nga yomb alxuraan alxuraan kenn ko woon di jàng fenn sëñ bi lu mu am alxuraan la bi ñoom bi ñoom njaboot gi nag ci kàddu sëñ bi seex lii ñu dajale teg ko ci sa loxo yàgg nga koo def defal ko suñu waaye ñun dañ cee gën a barkeel rek ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp sëriñ Cheikh Baba Touré nee na képp ku fi teew muy waa Kounta yu Ndiassane ñu sant Mbàkke ñëpp bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه النجوم الخاتم ومن اختفى بآثارهم إلى يوم الدين موكي جلد يفتن يب مانجي يكتي maa جمعيات المنظمات الإسلامية di mbooleem kuréelu diine association wala sax ONG tabarakallahu suñu mbokk sëriñ Cheikh Gueye bi mu jëlee léegi kàddu mënoon naa yóbbaale lépp waaye tabarakallahu bis bi moo toll noonu tabarakallahu ngay jël nuyoo yenn association yi bu ko jaaree ci turam moom mi nga xam ne moo fi teewal ONG Al Khayriya te suñu jigéenu bopp soxna Halimatu Sall bu Sëriñ Abbas radiyallahu anhu nekk ak Cheikh Abdou Fatah di liggéey ci wàllum di yëkkati kàddu tamit tabarakallahu di ñëkkee sama nuyoo ak sama ziyaara ci mbooleem kilifa diine yi nga xam ni ñoo fi représenté ci jotaay bi teg bii les familles religieuses muy Touba muy Tiwaawan muy Kawlax muy Canaba muy Laayeen ak tabarakallahu kër diine yi ci Sénégal yëpp di nuyu bu baax le corps diplomatique accrédité à Dakar nga xam ne moo ko ambassadeur bi di toog waaye di nuyu waa Masr mu dunia nu sallimu aleykum wa nu rahimu bikum di nuyu tamit tabarakallahu marraine bi nga xam ni bi ñu yëkkatee islam bépp rawatina population yëpp Thiès dañ cee am métti bu rëy muy soxna ma rek jëm sila di yaayu daara moom noonu laa koy ngir taxawaay ak bëggal lu baax waaye ngir taxaw li xam ni soxna ma rek jëm sila taxaw na ko askanu Thiès ak Sénégal ak euh, jullitu yàlla yépp di nuyu bu baax tabarakallahu soxna Mame Diarra Diouf fondation Cheikh Oumar kàddu gi mu wax tegtale na ni jigéen am na place bu rëy ci lislaam rawatina ci fondation maam Cheikh Yirlu Mar bi nga xam ni moom moo ko jiite di jigéen bu baax di ko mën a taxaw askan bi di nuyu sama mbokk bopp soxna Assa Diouf ñoom ñett su leen yow nuyu naa jigéen ñi ci saal yëpp waaye ñu may rek ma mel nuyoo tabarakallah ci tur association yi jàmbaaru lislaam bi nga xam ni dafa rocc si suñ suñu biir li may wax Ahmed Sall rek bés bu nekk rek moo valable ci mu mel ni président Serigne Boub wax allahumma unsur man nasara diin yàlla daal saa yu koy ñaan dañ naan yàlla nga dimbali ñii dimbali diine baax ci jàkka yi ci waaye ci li mu nekk tey muy opérateur économique fexe na ba They represent Lawatina autorité administrative et autorité euh, politique. Les gens de nous, sur le Khalid, sur le MAC, sur le conseil de Saint-Cher Ahmed Saloudek, Nasser Oudin, de Djambar Islam, de Kohamantanay, Limounay. fanweeri at ak lu topp mu ne lu jara tuut ndax nag bettuñu ndax daf doon nekk ak suñu kilifa di sëñ Murtada Mbàkke doon ànd ak moom di liggéey te ci liggéey boobu noonu mu doon ci seede ci li nga moom la dénk mu di saraxatul jaareelu

dundalaat ndax mag ñi dañ ci amoon taxawaay am solo rawatina kilifa yi mu fi lim sànq waaye ci dundalaat boobu nga xam ne suñu mag ñi suñu sëriñ yi suñu kilifa yi ñu ci mel ni Sëriñ Mountakha Mbacké defañ ci lu ama am solo muy institut Al Azhar ñu xam ko fépp ci Sénégal mu di ay daara di tedd xale yi di di yar ci diini di leen jàngal alxuraanul karim tuftal ci entreprise société de transport mu amoon placement njaare bu bëri xam loolu lépp muy meññ ci alal di dem di dimbali institut al azhar loolu amal am am solo ba tax na xëy na bisu mel ni bu dee suñ fi teewee dañuy gën di ñaax borom daraja yi borom alal yi xew-xew yu mel ni ñu gën ci jàpp war a mën a def lu mel ni ay sànq tudd na fi benn soxla boo xamante ne Alimatu Sall di doom ci euh, sëñ Abbas Sall ñu xam foofu ci Louga ak fépp ci Sénégal moom it ak ay raqam ay magam ñu jëmmal fële ca benn immeuble bu ama am solo immeuble bi di immeuble waqf muy meññ ndax di koy te lépp li muy meññ di der ci ndongo yi di der si ndaw yi nga xamante ne ay jërim lañ wala ñoo xamante ne mu di loo xamante ne am solo tey jii su ci teewee foog ñu fàttali ko nit autorité di Waqf nag bu weesoo mission bi nga xamante ne mission Wassare la état ñu sant itam ñuy contrôler ak superviser contrôler ak superviser nag Al-Wafa yi nekk fii Sénégal dañ ko déggee moo di gunge ñi nga xamante ne jëmmal seen bopp gën bi nga xamante ne moo a mën a wéy beneen mission bi nag maanaam état ci boppam dafa jël ne moom ci kafagaam dafay def waqf waqf xari xari ci loolu nag ci at mi am na loo xamante ne def nañ ko 2023 mooy fayal téeméeri junni ndongo daara ci wàllu paj mi ñuy wax waqf seeni daara ci liggéey boobu noonu nag ñu ngi ciy sëriñ ñu ngi ciy sant sëriñ daara yi nga xam ne ñoo ci gunge di sant kër diine yi nga xamante بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم mbokk yi maa ngi nuyu di nuyu kilifa diine yi fi nekk yépp ak kilifa yi nga xam ne nii ñoo nekk ci dëkk bi di nuyu jigéen ñi di leen sargal ci weeru mars bi noo ngi leen di di leen siyaar di yëkkati kàddu sëriñ Mahmour Mbacké mu seex Mahmoudou Mourtada mu jaar ci rakkam sëriñ Abdul Ahad Mbacké di xaritam di lépp sëñ am laat fekk fi ay rakkam sëñ Mahmour Diarra moom sëñ Mourtada sëriñ Abo Mbacké moom Cheikh Mouhamadou Mourtada mu ànd ak Serigne Lamine mu Serigne Saliou mu Serigne Afa ak suñu jëm ji oustaz na ñu ay kàddu nag ci koo xam ne suñ ñëwoon toog mën nañ ko ne Ahmed jëlal kàddu di wax ci waa kër Serigne sëñ Murtala moo jëfandikoo coobareem ci mu liggéey lu bari ci wetu sëriñ muy lu mu seet lu fekke nitu yàlla nag noonu lay doxal kii doom ak kim bëgg def ci moom bu baax ñoo yem ci moom ku jegewu sëriñ loo xam ne bari na ci njabootam xamul lu mu séq sëriñ toog na ma ak sëñ Mor wax ko ma toog ak sëñ Dàkk wax ko sëñ Dàkk bi ñu toog itam xam na damay wax ne jëmmi ak dem su noonu rek kii sëñ mu taal defar ci mboor doy na mu taal doy na sëkk ci réussir mu taal sëñ mu taal bi indi doyroon ko moo tax mu ne ko na ñëw teewal ko ci bis bi moom dem teew feneen ndax xam na ne bis bi li may wax ci commencement bi su ñu woon ne am na wax ak tout waa kese bi xalaat amat na loolu teewal ko ñëpp kon sëñ Mamour ne lii nga xam ne borom la sëñ laa bàyyi ko fi nga nekk ci di ko doxal muy lu wér dana sant dina ci gërëm dina ci nga watul sëñ laa képp ñu ngi lay barke Muhammad ibnu Muhammad ibnu Abiballah ci liggéeyal Muhammadu Rasulullah ba lislaam bépp di ko wooye Xaadimu Rasulullah mu dëkk Tuubaa Madina woote ci diine muridullah ni yéen ñi jublu ànd ak man da dem àjjana kon nañ ni alhamdulillah mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen baax di wax ni tey dama koy tëgg rek ci ñett alxuraan képp koo xamante ni bëgg nga yàlla wax ak yow jàngal alxuraan ku bëgg yàlla wax ak yow na nga ku bëgg na wax ak yàlla na nga dugg ci jàkk ji julli saa boo duggee ci jàkk ji julli rek yaa ngi wax ak yàlla tey boobu nag Suddeti verbi boyları bir anıbesir. Sırık Ahmet Sağ. Subunduyo. Derki Şah Mahmud Murtada Gök Sakar Mişan Abdullah. Nabal Hınnay. Müfekketleri. Ligiyel dini İslam. Çal Kur'an. Ligi Şah Mahmud Murtada def. Defa ne müddef. Def ligi kaw suuf. Loo xamante ne nag ay mission islamique nga taxawal ko ci réew bii laa dañuy xam ni deret Sëriñ ay sëriñ bi nag moom bi ni wa alihi wa sahbihi wa amli rida min jamiil Abdul Xadim al Murtada kon sëriñ Ahmad Sall trente et un ans tey ngay jóg di ko def diine ji taxaw nga ci taxawaat ba ca xalaat nga ci Cees kon Ahmad Sall li ñuy yalwaan yàlla mooy yàlla dafa yàgg te wàll wér ndax téere bi bu nit yi dafay am solo nga tudde ko nag jàmbaari islam muy Serigne Saliou Touré ñeent rek laa ci wax mooy beneen ba li yàlla dëgg ab jaamam mel ni Cheikh Saliou Touré mel ni ko li yàlla dëgg ab jullit mel ni Serigne Saliou Touré mel ni ko li Serigne Touba bëgg ab murit mel ni Serigne Saliou Touré mel ni ko juróomi aar dal na ko juróomi aar aar na di ñaanal leen ñoom ñëpp yàlla doole leen te dimbali leen di nuyu nag soxna yu baax yi ndax année de la femme ma gaar ci man sama sët muy tan wax dëgg yàlla moom jaara Diouf moom sama sët di dee ci Cheikh yi bu baax sama la se se le Cheikh Sall bu ko waaw doo mën a sama fan yooyu sëñ bi yëpp la tàmbale asamaan la suuf maa ngi leen nuyu waaye nag sëñ dafa sàmm gis nga kii di sëriñ bu wallahi mu yàq ñëpp ci ay waxi kese waaye sëñ bi daara jee ca kooku fa la bàyyi te ku bàyyi koo ci daara a yor dara mais yow ko bàyyi koo ci daara ja wala daara ji wax mu ni bis bu ne yaay dundee daara ji ci añ ak bàyyi xel Ahmed Saloum Dieng Ahmed Saloum dafa liggéey liggéey ba walaay waa waa jaay ma Ahmed Saloum ñun ma félicitation bi léegi jàmbaar sa liggéey waaye nag comme même bu doon doomu góor ndax sëriñ bi nii nag bàyyi ko nekk di ko wax sëriñ Bara bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin tout d'abord maa ngi remercier presse bi teewoon yëpp ci bis bi euh, lii day wane seen motivation ak seen taxawaay suñu wet saa su nekk euh, événement bu ñu am rek bu ñu gëstoo gisee suñu wet te euh, seen teewaay dafa am solo ndax mooy tax li ñuy tënk fii ci Thiès wala li ñuy taxaw fii ci Thiès daj àddina waaw bis bi ni ñu woote woon tey mooy bis boo xam ni ren am fanweeri at ak benn ñu tàmbali woon ko ci 1993 bi ma ko xalaatee fekk ñu invité woon ma benn ndaje mu mel noonu concours alxuraan ci 92. bi ma ñëwee waxtaan ci ak sëñ Mouhamadou Moutala Mbacke Ibnu Xaadim Rasul xamal ko ni amoon naa yéene la ma gis Égypte ma def fi lu mel noonu mooy def concours alxuraan xam nga ne eh, Sénégal réew la moo xam ne yàgg nañ fi bind alxuraan karim yàgg nañ fi mokkal alxuraan yàgg nañ fi teral alxuraan eh, alxuraan sax daan nañ ci may nit soxna ndax xool dëkk sàngam ka fa gën a mokkal alxuraan ñu bi ñu may ko ko. waaye jongante ci waat alxuraan yàlla def nañu tawféex ñoo ko jëkk def Sénégal 93 ren am fanweer ak benn loolu nag tawféexu yàlla yàlla moom mooy xool kenn ku ne la mu namm ci mu defal léegi nag ñu ba koy def mais loolu xéewal la xéewal ndax lu lu baax dafa yaatu xéewal la ndax alxuraan moom moom penc yëpp xéewal la ndax alxuraan moo tax yàlla binduñu xam ngeen alxuraan dafa ñëw tënk téere yi jiitu woon ndax suñu borom yónnee na ay yonent waaye dafa wàcc alxuraan daal ni dama ciy tënk téere yëpp ba pare wax ni naa na na xam inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun man yàlla suñu borom maa wàcce alxuraan te maa koy sàmmal sama bopp sàmm googu nag moo tax alxuraan xëcc ci dënd ndax yéen ñii kenn ku ci mokkal ab livre français de A à Z amul waaye mokkal téere alxuraan cinq cent et quelques pages xale boobu amagul quinze ans mokkal ko xam nga noonu baatuñu suñu borom ma nga ci biir ndax yéen ñii ay ay ay excellent élève ngeen bi ngeen di jàng ba ci ministre yi fi nekk président yi kenn ku ci mokkalu téere téere français te dem géographie wala grammaire wala anglais amul donc xam nga loolu euh, kéemtaan suñu borom la subhaanahu wa taala ma waxoon ne aussi maa wàcc alxuraan te maa ngi koy sàmm maa koy sàmmal sama bopp loolu dafa jee dugg ñun aussi ñu amoon xalaat boobu euh, defoon ko concours régional concours boo xam ne non seulement waa Thiès dañ ci teew mais waa sous région bi dañ ciy teew mooy pays nga xam ne ñoo nekk ci CEDEAO euh, daan ci teew ñu daan jàppante suñu mbokku libyens yi Libye am crise depuis 2011 ñu ne Libye am na crise mais alxuraan amul crise ñu continuer ko def sant yàlla teel a am fanweer ñu ñu ñu ñu def ko nag ci keppaaru islam def ko ci Thiès waaye nag tudde ko ku màgg ku tedd koo xam ne léppam alxuraan la woon léppam diine la woon léppam defar mbokk la woon léppam dimbale la woon muy Serigne Saliou nekk nekkoon fii Serigne Touba. Euh, bërki démb di neuvième jour ko ñu doon féete 42 ans yi mu ñëwee woon fii ci Thiès loolu daal moo waroonoon jotaay bi comme nañ ko xam ne aussi jotaay bi pour bëgg xale yi kenn ku ne yëg ci sa bopp moo ñu defoon ko ñeenti section section bi nga xam ne ñi moo ko alxuraan ñëpp dañ ciy bokk. section bi nga xam ne ñi mokkal moitié du Coran na ci bokk section bi nga xam ne ñi mokkal le quart du na ci bokk ak section boo xam ne sax a mokkal euh, mhm. dañuy décorer les les les de chaque section mooy 12 lauréats mooy ñetti ñi réew ci bànqaas bu ñetti ñi raw ci bànqaas bu ne. dañu leen décorer neexal leen. concours bi aussi comme ni ngeen ko xamee euh, mën naa ni am na 57 jeunes sénégalais yoo xam ne jaar nañ ci concours bi dem ci ay concours Malaisie ñu dem ci ay concours Égypte ñu dem ci ay concours Libye ñu dem ci ay concours Liban donc concours bi portail la pour mën a dem ci ay concours internationaux ba na xale yoo xam ni tey jii ñu ngi dem nañu participer ci ay concours internationaux fi lañ jaaree xale bi jàng tey alxuraan bi ñu ubbi mooy ndombor seen dem na benn concours Malaisie jël premier ñëw euh, bëri na xale yoo xam ne daan nañ concours bi dem tey jii rek gis xale bi raw ci saasa ki fi jiite université Al Moustapha bu Iran nee na may na ko bourse 3 ans mu su fa demee day gën a approfondir njàngu diineem gën a setal njàngu alxuraanam waaye nag jàngale xam-xam donc concours bi daal li ma la waxee mooy man mii di wax ak yow ci via association bi xam ne maa ngi ko jiite te association boobu ñooy taxawal concours bi li jaar sama loxo bi ci ay bourse moom may ko ay doomu Sénégal ëpp na 300 personne yoo xam ne ñuy jàng nañ ba ñëw sax yor seeni doctorat <laughs> donc loolu euh, mbir la moo xam daal. ci concours euh, alxuraan récital bi am boo xam jàpp nañ ni moom ci gën a ràññee mooy bu Dubaay bi. ndax yow euh, ci sa bos bi ngay def nii yaa ngi xalaat ba àgg foofu. wala xam nga xam nga loolu loolu moom loolu moom at yi passé maa ngi koy wax euh, bon heureusement Sénégal maa ngi def na ko ren avant mu muy dem euh, parce que man depuis depuis dix ans maa ngi réclamé ni état de Sénégal réew moo xam ni quatre-vingt-quinze pour cent musulman lañ suñu état war na initier concours alxuraan parce que lii man maa ko initier man Ahmed Salam Dieng maa ko initier fii yàlla gën a jàppale maa ngi ko initier ci Sénégal defe naa ren am sama mbokku daara Cheikh Abdou Malick di doomu Baye Niass ma ngi koy initié ma ngi koy initié ci Kaolack am na ñeneen ak ñeneen ñu ko initié mais li ci am solo ba am ci solo li ci am solo ba solo mooy état du Sénégal yàgg naa wax ni war nañoo ordine ndax kooku Dubaï ba mu ngi wax Dubaï dañu yóbbu xaalis rek waaye état état fa ne comme suñu état bii rek boo demee Arabie Saoudite ña ngay organiser concours boo demee mm, mm, Libye daa doomu Xadafi daana organiser concours boo demee feneen daanañ organiser concours mais yàgg naa koo wax mais ren Macky Sall def na ko avant muy jeexal mandaam mooy organiser na benn concours euh, ci affaire alxuraanu karim muy mbir mu yaa ko réclamé nag yaa ko sàkku yaa ko yaa laaj muy suñu réew organiser concours boo xam ne état du Sénégal moo ko organisé nga xam ne tey Ameth Sall li muy def xëy na ay moyens boppam la koy def ay moyens partenaire am mais xaalisu Sénégal bi nga xam ne ay jullit ko moom ñu taral ci alxuraan wàññiwul dara ndax football ab compétition xam ne nit ñi bëgg nañu ko rek état bi di def ay milliards. basket ab compétition la boo xam ne yëg nañ am na benn benn ci doomu réew mi ñu ko bëgg ñu ci def ay milliards tey ji équipe nationale bu ñu dem sax léeg-léeg ñu jox leen avion avion borom réew mi léeg bu ñu dem jaar ci palais ba tàggatoo ñu may leen dara bu ñëwee dem dem ñu teeru leen may leen ay millions may leen ay terrain may leen suuf donc alxuraan moo ëpp mérite ci loolu lépp ndax footballeur boobu alxuraan ko tudd footballeur boobu bu dee alxuraan bu dee ñu koy kenn jullee ko te du ki lay tudd ki lay jullee ki lay gunge ki lay ñaanal ki lay jox saafara si ngay sangoo ki lay benal kiis ba sam xel mën a neex kooku dafa jara fonk ñu nag dañoo am loo xam ni dañ ko valoriser wul mooy Sénégal dañoo am valeur islamique boo xam ni mag ñee ko fi def te ji Sëñ Tuubaa benn baatu français xamu ko Alaaji Maalik benn baatu français xamu ko jàng ko jàng ko xamu ko bëgg ko Tuubaa yi bu yàggul sax dina ñu am na école français mais ba bu yàggul benn école français amu fa li fa nekk lépp ay école ak i daara alxuraan ba ca des mbedd sax turu arabe la yor daarul alim xabir daaru daaru rahman daaru quddus ay turu arab la ay turu yàlla lañ ko di delloo al rahman turu yàlla al quddus turu yàlla al alimul xabir turu yàlla donc fu ne benn bu ci nekk mais ñun dañu am la te fu ne Touba mooy dëkk bi gën a naat Sénégal fu ne suñu mbokk journaliste yi sama mbokk yu mel ni man ñu sant ñag dañu yaakaar ne Touba xewle bañ dem fa ndax xéwal yi fa gën a yaatoo fa gën a neexee lu ko lu ko fa indi alxuraan état indiwu ko fa lobby indiwu ko fa alxuraan na ko fa indi ñi dafa jot ñu xam ni Sénégal am Sénégal gi fi am jàmm ji fi am valeur yi fi am manam mboko gi fi am jammo gi fi am alquran moo ñu ko may rew ni jege nii manam fe mu tak fay léeg mu tàkk continuer boo demee Libéria boo demee Guinée Conakry bo demee Mali fo dem léeg mu tak léeg fitna am fa mais Sénégal léeg mu dem bay tak ben kilifa wax wala mu dem bay tak kilifa wax ak ñi ñu waxal mu ne mu sedd guy lool nak manam mbootu alquran mo ne fofu moo tax wax naa léegi ci stade bi ni buñu xép langue arabe man fi man fu ne mu gënoon sax mu wax ci rew langue arabe parce que français du suñu nak su suñu maam xamuñu ko bëgguñu ko buy ñaan duñ ci ñaan buy julli duñ ci julli te réew mi maanaam bu njëkk maanaam eh, juróom fukki ci ginnaaw mag ñi bu ñu daan bindante lettre ci arabe dañ ko bind alphabet arabe dañ ko bind boobu kenn léegi nga bind lettre sax di boobu mag ñi seen alaaj maa su mu sànni bind eh, eh, Sëñ <laughs> Tuubaa fra arabe def na ñoom ñoo ngànk réew mi donc caaxaan baaxul waxuma ne benn làkk bon na mais bu ñu dévaloriser benn làkk bu ñu soofantal benn làkk waxuma sa langue arabe mais langue wolof sa dañ ko war valoriser ba mu ci langue yi nga xam ni dafay doxal Sénégal. ñu joxale benn mbir rek aada ah, xam naa sonn nga de ay niki suba dañu dem ci wote ngay ñaanal réew wote affaire ñaan affaire sa bu neex la wote du mbirum ñaan ñaan bu jullit xewlee catholique yaa ngi seen wet bu catholique xewlee jullit yaa ngi seen wet parti politique yi maanaam bu élection passé ku ci xewle boo gëstoo da gis Khalifa Sall fee gis Idrissa fee gis diw fee gis diw dem moo ci mujj bi Sidi Kounta Ka ñëw fii ci Ndiassane yàlla na ko yàlla yërëm Idrissa leader politique bi dem nañu fa jaaree ko te ñoom moom ci parti bi donc Sénégal mbokkoo moo fi am bëggante moo fi am jàmmoo moo fi am loolu nag bu ñu ko fooyee ba ca desit élection maanaam du xëccoo ndax xëccoo alxuraan dafa ni wala tanaza'u fa tafshalu wa tazhaba rihukum yàlla mooy wax du samay wax bu leen xëccoo bu ngeen xëccoo da ngeen di échec bu ngeen échecee da ngeen di rëccu bu ngeen rëccoo seen effort yëpp dafay nax saay donc xëccoo baaxul élection tànn sa bu la neex la bu la amoon bu gën tànn ko bu la jomaa gën tànn ko bu la sëriñ bu gën a tànn ko waaye tànn ko ci sago booy dem bul sol t-shirt buñ buñ bind sa sa sa sa logo candidat ndax yaa ngi koy xañ carte booy dem bu takk la boo xam ne sa sa yëfi candidat yaa boo dem demal ci sago bul taxaw ci buntu bureau de vote yi aussi di werante soo wootee dem su ko xar résultat yi ndax mënoo fexe ba woote ñaari yoon loolu moom daana fi am at yi repassé nga woote dem raxasu sa daal ak chef de bureau seen parti résultat yi résultat yi moom léegi gars yi balaa timis journaliste yi xaw a génne bureau bu ne la fa xew ñu def sondage sam ko gagné yàlla na doon jàmmi Sénégal doon ki gën Sénégal ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك